jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, réew mi FM 97.5 mbokk ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité Nogoy Mbuub Nogoy Mbuub nag nekk responsable politique APR ci yoof nekk conseiller municipal. waaye bokk ci ñi taxawal mouvement les amis de Diouf Sarr ADS moom la ñu invité tey ndax xam ngeen ne fan yi coow li nee na cobbay am Diouf Sarr indi Diouf Sarr frustration ñenn ñu njort sax ne euh, moom la def danañu ci waxtaan euh, Nogoy euh, réew mi FM a ngi lay nuyu. jërëjëf Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu auditeurs waa mi FM yépp di am mbégte. ci invitation bi nga ñu invité tey pour ñu wax ak askan wi. Euh, jërëjëf euh, Nogay euh, Mboup comme ni nga ko waxee sànq yow ngay conseiller municipal xam nga nag mënuñu waxtaan ak koo xam ne responsable politique APR la bokk si ñuy jege Abdoulaye Diouf Sarr te duñ la laaj tuuti seen politique ci yoof yéen wa APR ñu gis na tey amoon ngeen benn ndëgërlaay. bi Diouf saar di gagné élection locale Yoff presque yeneen communes yëpp 19 communes yi département bu Dakar benn bokk yaakaar daf ko ñàkkoon ñu jekk-jekk mel ni dañoo gis ne waa yoof dañoo euh, wan ginnaaw Diouf Sarr ak waa APR rek waa benn bokk yaakaar ba ngeen ñàkk élection locale yi ñu ne déetawaay ngeen ñàkk élection législative yi boo ko doon résumé tey lan nga jàpp ne moo ko waral. waa jërëjëf maa ngi lay bégte bu baax am mbégte di wax ne question boobu nga laaj question d'actualité la. question bu am solo la ndaxte en tant que conseiller municipal yàlla dafa dogal 2014 conseiller municipal la te loolu nga wax dëgg la euh, bi ñuy gañee ci département de Dakar boobu gañe jafe woon na trop wax dëgg yàlla commune de Yoff dindi euh, lépp lu doon jafe-jafe ba bégal li nga xam ne mooy APR candidat bi ci gañee mu doon Abdoulaye Diouf ci jamono yooyu macha allah mu fekkoon ko kudd booba tey muy liggéey di wane xerañteem ak njàmbarteem waaye tamit loolu yépp ci euh, plan wu yoonu yokkute bu son excellence de président Macky Sall mu koy nuyuwaale ndax moom mooy sunu ndëgër lay ci Benno Bokk Yaakaar yàlla bi mu ko joxee ndamit waaye Yoff jox ko ndam booba itam dañ daan wax naan ku dul jéggi autoroute doo mën a indil sa dëkk dara Euh, mu am lu mu def nag lu bari ci yoof ndax bi ñu fiy ñëw booba fekk nañu fi ay euh, vingt cinq emploi lañu fekkoon ci ci ci ci conseiller bi. 2014 2014. mais booba yoof président Macky Sall lañu voté loon wala Diouf Sarr lañu voté loon. non booba booba yoof président Macky Sall lañu voté ndax xam nga euh, boo waxee ab Abdoulaye Diouf Sarr dafay jaxasoo ak Macky Sall parce que Abdoulaye Diouf Sarr buy taxaw di wax dafay waxee ci couleur bi mu bokk. Ah, mais Yoff mënoon nañ ko wóolu en tant que seen doom ñu am ñu am euh, rafet njort ne mën naa changer Yoff waaw loolu ci la loolu ci la parce que boo ma boo ma boo ma bëggee dindil Abdoulaye Diouf Sarr dindi Macky Sall day nekk problème parce que bi muy dem ci couleur u Benno Bokk Yaakaar la dem la demee kon nag ña ko voteel ci couleur yu Benno Bokk Yaakaar doo leen mën a dindi. waaye xam nga mais mais soxna euh, Nogoy Mboup élection yi passé rek élection locale yi ñenn ñi dañuy jàpp na Yoff sanctionné wuñ Diouf Sarr waaye président Macky Sall lañ sanctionné. waaw loolu waxtaan moo koy indi damay jiital rek ne jamono yooyu bi ñuy votel voteel Ablaye Diouf Sarr ci turu Benno Bokk Yaakaar lañ ko. gagné d'accord naa si turu Benno Bokk Yaakaar. jëmmi Ablaye Diouf Sarr nag ci boppam. waaw dana am poids xam nga électorat bu nekk jëmm ji dafay am poids. Mhm. su jëmm ji amee poids ba pare. li ci des dafay am lu koy complété muy coalition muy parti muy mouvement. ak lu mu mën a doon. donc quota wu Ablaye Diouf Sarr d'abord ancrage doon lébu ak doom ci biir yoof parce que nag ay ay doomi yoof ñoo doon xëccoo. kon ña fa doon xëccoo te ñàkk ko. boo leen bëggee ne ablaay rek a doom doon doom da ngay indi problème. non du question doom waaye am yaakaar. waaw yi as loolu la xam nga yaakaar bi ñu porte ci moom mooy mi ngi Benno Bokk Yaakaar mi ngi ànd ak le président Macky Sall. donc espoir bi dafa toll ni kii kat doomi yoof la waaye itam jàpp nañ ne mi ngi ànd ci couleur benn bokk yaakaar. te gëm nañu plan Sénégal émergent bi ñuy doxal.

laa bokk dis dama discipliné. dama jàpp ne Ablaye Diouf Sarr doom la am na quota. ci biir yoof bu ñu ko voteel mooy doom. waaye tamit ci biir loolu dafa am couleur bu mu bokk. muy benn Bokk Yaakaar. de toute façon loolu gagné nañ ko passé nañ ko. d'accord dem nañu tey jii macha allah ba nga ne législative yi wala locale yu. deux mille vingt deux yi. ñu perte ko. Mhm. waaw loolu loolu dëgg la ña ko ña ko voteloon moo am ci ñi fàq. voteeluñ ko bari mun naa ci li mun naa ñun wax lu tax lu bari bëri am. lu tax la xam nga bu fekkente ne da nga bokk ci benn coalition nga war a dooleel sa coalition nga war a boole sa coalition mu nekk benn bu ñëpp di xeex jëm ci yow yow boo tasee rek mooy yow wàññi nga sa doole. te gis nga ne élection locale yi passé dafa bari liste parallèle ci dëkk yëpp liste parallèle yooyu mën na am 1 pour cent la wala 2 pour cent la lu fàq ci. li nga xam ne ci Benno Bokk Yaakaar ñaareel bi itam gis nga ne Ablaye Diouf Sarr deux ans yii ñu génn li nërmeel presque Sénégal mooy gë nërmeel monde bi yépp mooy li nga xamante ne nii mooy Covid 19. te yàlla dogaloon nag mu nekk ci nag acteur principal gannaaw le président Macky boo xam ne nelawatul naanatul guddi ak bëccëg mi ngi ci coonay Sénégal yi ba xëy na sax commune am daanaka na mu leen war a amee proximité parce que nag xëy na euh, collectivité locale wala commune euh, li ñu ci bëgg mooy maire ba di jokkonte ak ñi nga xam ne ñoom la bureau ba di jonkonteel ak ñi nga xam ne ñoom la administré askan wi xëy na nag am na benn moment askan wi sentiruñu seen candidat wala ñu jàpp ne seen candidat tamit xëy na mi ngi jëm dakaar parce que dafa dafa allié mu nekk conseil municipal nekk fa maire Yoff ba pare daal ne dama bëgg dakaar ñoom nag ñu ne ah. comme kii na nekk lu gën a neex waa Yoff. waaw waaye xam nga politique dafa laaj euh, ubbeeku dafa laaj nga nekk ci pour comprendre lu bari dafa am koo xam ne moom Yoff rekk a ko intéressé maanaam boo jéggee yoof gii rek dem Patte d'Oie intéressé wu ko moom nekkal Yoff yem Yoff defaral yoof ñu ànd ak yow ci li ngay def yoof am koo xam ne xam na ne boo jugee yoof dem mairie dakaar la ngay am ci mairie dakaar wala blocage yi am ba tax xëy na blo ci jamono yooyu parce que tamit mairie dakaar am na loo xam ne bloqué nañ ko Yoff te jamono yooyu am na fa nekk maire comme mën naa la wax le cas li euh, mu tudd Ouest Foire tali Ouest Foire bi bloqué wu nañ ci ci lu bari loo xamante ne nii tey maire yi maire yi maire yi maire yi Dakar jàppale ci woon la preuve tey bi nga gisee rek ne am na maire boo xam ne ca ñoom la bokk ñu ngi commencé di ci di ci dox donc kon pour wax la gis nga dans l'administration wala ni ay nit a ko yor te nit ñi dañu am par parloo am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne liggéey bi ñu yor bu ñu ko dee def duñ ci xool couleur parti duñ ci xool ethnie duñ ci xool euh, nu mu diine bu ñu bokk duñu xool leneen dañu am pas-pas ne liggéey bi dañ koy def dafa ñu ko war a def am ñoo xam ne si seen biir liggéey dañuy xool ne kii kat dafa bokk fii Abdou Khadre dafa bokk ci Nogoy mbub waaye Nogoy Mbuub dafa bokk ca keneen naa seet na ma ciy taxawee donc su ko defee la nga xam ne moom la ñu war a gis dëggantaan njaay ah. ci jeexitalu liggéey bi dafay des donc ma wax la ne kon li tax élection local ak législative yi. non locale d'abord. locale ñu ñàkk ko mooy jàpp nañu ay ay ndëgg sërëxal yu bari yu ne ci biir. ci biir waa APR ci biir ci biir rek. ci biir waa Benno parce que APR génnul dem parti moom kenn. Mm-hmm. APR dafa bokk ci Benno parce que Benno doon yàqal yéen. waaw ñu di ñu yàqal suñu bopp yàqal suñu bopp. parce que amul dara lu fi yàq man su ma yàqalee. Euh, Diouf Sarr te bokk ci APR Macky Sall laa yàqal su ma yàqalee Macky te bokk ci Bennoo Bokk Yaakaar laa Diouf Sarr laa yàqal donc unité bi ñuy wax bennoo bu ñuy wax bu ñu ko gënoon a dëggal saxal ko ci biir néeg ak biti kon yaakaar naa heure bi parti bi dina dem fu sore sore. donc bokk na ci yi nga xamante ne Diouf Sarr dañ ko def dañ ko def candidat de Dakar de benn bokk yaakaar mhm. mais président Macky Sall est-ce que taxawaay bi mu si waroon am dëgg dëgg dëgg wax ak leader yëpp taxawaay boobu président Macky Sall am na ko waaw xam nga man jàpp ma ne président de la République dina la jox loo xam ne yaa ko war a indil ndam ba pare mu lay ndëggal loolu moom dama bëgg nit ñi évacuer ko et président Macky Sall lépp lu ko war mi nga koy def ak leader yi parce que keneen lu bu ko neexoon mu ne du ma tànn euh, Abdoulaye Diouf Sarr pour def ko candidat législative wante nag dafa am ñoo xam ne dañu nekk ay jabootam ba pare di def rébellion ci biir di def li leen neex ci biir. moo seetaan leen. wel xëy na mi ngi wax man ma jàpp ne da leen seetaan. waaw nit ñi mën nañu jàpp ne da seetaan mais man jàpp naa ne sax mi ngi wax Macky Sall mi ngi wax parce que ñëpp xam nañ ne ay réunion am na fi juboo leen nekk leen benn ànd leen su ma leen joxee ndomba tànk yéenay doon sama tànk ci askan wi loolu nag cela veut dire que yéen ñëpp da ngeen war a bokk wax nuroo wax nuroo jëfin waaye ambition politique yu différent yi ak kenn ku ci nekk loo ñàkk yaakaar ne sa morom moo la ko xañ moo tax kenn ku ci nekk booy rëbbi feew wala ngay rëbale wu doo xool bàyyi man nag damaa jàpp ne euh, euh, président Macky Sall hmm. taxawaay bi mu waroon a am ci élection locale yi ci euh, candidature Diouf Sarr amu ko li tax mooy su amoon dëgg frustration bi am ndax diggante ñooñu Diouf Sarr Diouf saar Amadou Ba euh, Diouf Sarr Mame Mbaye Niang ak ak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen président bu leen woowoon tey comme ni mu ko defee ci élection législative yi ndax ci élection législative département par département la doon recevoir bi mu gisee élection locale yi problème am ci département Dakar lan moo tax woowu leen euh, palais ba waxtaan ak ñoom. waa xam nga boo gisee am na benn sorti bi le président Macky Sall def ne local moom du ci dugg di ci wax. xanaa bii bii passé. waaw waaw xam nga bi ci biir passé la ñu nattee. waaw mais non dafay taxawoon local 2014 ne directeur bu gañuwul ma dàq la. waaw bi mu ko defee 2014. waaw directeur la mu ca waxoon def na ko ku gañewul dàq na la. xam nga lu moom yàlla defal na mooy birima. waaw lu mu ci wax rek dina ko def. xam nga ba mu nee mille 2014 ku gañewul ma dàq la ku gañewul dàq na la parce que dafa amoon ay raisons ñu ñëw mille vingt 2022. wal wala 2021 parce que local yi 2021 la. waaw mu ne tek di ci seetaan na jàkk jaa ngi noonu ku mën noddal kon foofu xëy na. loolu manque kilifteef. non du manque kilifteef manque kilifteef. waaw loolu loolu. man laa jàpp waaw waaw loolu xam nga loolu yow Abdou Lahad. waaw am nga Abdou Khadre. macha allah sa tur bi dafa neex Cheikh Abdou xam nga yow war ngaa mën a am sa appréciation ci réew mi. Hmm, boobu am. man ma am sama dund ci biir parti bi. parce que man nee naa la encore une fois. nous sommes des militantes disciplinées. d'accord man du ma def liste parallèle. bu ab bu Macky Sall tegee. Macky Sall bu nomee nit duma ko xas. Macky Sall bu bu bu tegee nit dindi ma. duma ko ŋaññi. mais ñi indiscipliné ñoom la président Macky Sall di dugal ci gouvernement. waa xam nga loolu nag tey fi tey. àddinaa ko gisandoo. waaw mais jàpp naa ne lii ñu gis mu def ko. bëgg naa am président Macky Sall ñu woo ko posé ko question ne ko président Macky dañu gis ne sa parti bi ñi indiscipliné. yow journaliste nga. dañu gis ne ñooñu ngay teg. xëy na am na raison. xëy na moom am na raison. parce que bu fekkente ne buñ la falul nga yàq te président Macky Sall am na lu mu fu mu bëgg a dem mais dina téye yàqkat yi ci biir xëy na di liggéey leen ba bu dina dina dina dinañu rendre xam nga euh, soxna Nogaye euh, Mboup yéen a moom seen parti politique. waaw bu la neexee nga discipliné. waaw waaye man sama xalaat wax ak sama jàngat. dëgg ndax émission bi noonu la tëddee mais damaa gis ne président Macky Sall moom ci boppam. moom mën naa ne dafa mel ni lu sacrifié Ablaye Diouf saar ci élection locale xam nga lu tax. waaw président Macky Sall kenn mënut a wax ne capitalu Sénégal intéressé wu ko woon waroon na ko mën a intéressé. te dañu gis na tey Mame Mbaye Niang mhm. moom non seulement dafa beroon liste boppam. mais def sa liste parallèle kese mën naa bañ a grave. waaye daf ko def ba pare di combattre Diouf Sarr. booy combattre Diouf Sarr nag yaa ngi defaral Barthélémy Dias maanaam. beneen bi mooy même bu passé Mame Mbaye ñaam man maa dégg man. mii di wax ak yow Abdou Khadre. Moussa si maire parcelle. ne Amadou Ba taxawaay bi mu waroon a am mu la mayo. def ko ci élection yi ci parcelle. te te boo nekkee jàppale woo Moussa Sy ci département commune bu Parcelles mooy jàppale woo Abdoulaye Diouf Sarr ci département de Dakar. Mhm. man ma gis na ñaar ñooñu. te Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba dañu am ñoom ñaar euh, ay wujje lañ ci wàllum politique. Mhm. ñoom ñaar ak seeni nit. Mhm. seeni militan ñu gis ne Amadou Ba moom ak ak Mame Mbaye Niang moom le président Macky Sall tey dugal leen ci biir gouvernement bi. te ñoom kenn Macky Sall mënu ko justifier ci ay résultats politiques. loolu moo tax ma jàpp ne ñi doon ñi doon saboté kenn mënu si génne ñaar ñooñu lan moo tax ñu dugal leen ci biir gouvernement bi. waaw xam nga yàlla dafa dogal président moom moo moom am prérogative nommé ku ko neex man dama wax ne bépp militant bu combattre moroomu militant woo. waaw yàqaloo sa bopp yàqaloo ki ngay yàqal parti bi nga yàqal. te gis nga ni opposition bi def wala di def pour booloo dem bay imiter bennoo bay def coalition internationale te ci bennoo lañ ko gisee te xam ne bennoo jig na leen. ba yëngal bennoo ba yëngal bennoo waaw yëngal nañ ñu. yëngal nañ ñu bu baax a baax parce que yëngal ñu tey moo taxoon ñu am majorité à l'Assemblée nationale tey ñu nekk peut-être majorité égale maanaam ñu xaw a tollooy doole. te tolloo doole nag kenn mënatul wax ku man dañuy bëriwaat jëm waaye nag ci biir bëriwaat bi bu leen fàtte ne président Macky Sall am na quota bu muy ñëwaalee parce que tout président tout leader am na ku la bëgg am na ku la bëgg am na ku la bëgg te am na ku la bëgg boo xoolee sax ci ni ñu koy nattee dañuy wax ne président bu nekk lu mu néew néew néew am na 10 pour cent moom jëmmi boppam soo xoolee nag 43 pour cent boo ci boolee 10 pour cent wu Macky Sall day nekk 53 waaye politique dafay wëlbatiku day day day day day day day soppiku day changer chaque jour que Dieu fait acte boo posé rek mu am lu mu soppi acte bi nag su fekkente ne dafay nekk acte boo xam ne dafa dafa dafa nekk acte bu incompréhensible maanaam bu nit mënul comprendre day daal di daal di jël wëlbati ay xel wala xalaat loo ay xel loo xam ne naka sudul noonu d' accord léegi euh, jërëjëf euh, nga baal ma soxna Nogaye Mboup ñu fàttali na yow responsable politique APR nga fii ci Yoff bokk si jege jegeñaale Diouf Sarr yow ñi taxawal les amis de Diouf saar ADS si nga bokk xam naa dinañu ñëw euh, ci loolu léegi wax nañ ci élection locale yi sànq wax nga ci nomination Mame Mbaye Niang peut-être yéen mën ngeen koo bañ a mën ngeen ko bañ a comprendre danañ si revenir aat ndax Diouf Sarr. bi ngeen def seen lancement tournée régionale bi ngeen bëgg amal Diouf saar wax na ci saboteurs yi ñu dugal ci gouvernement bi léegi nga baal ma rek ñu ñëw ci élection législative tamit lan moo tax ngeen ñàkk yoof non yoof boo xoolee déroulé local dañu amoon huit mille cinq cent wala huit mille sept cent voix ci local mais boo ñëwee boo gisee législative bi presque on a dix mille et quelques voix te teewul ni ñi fragiliser woon local bi list parallèle yi am na ci ñoo xamante ni ni muyewuñ sax la mayo muyewuñ la mayo ci législative bi dem nañ ci président Macky Sall rek ne ko waaw dinañ ci liggéey Macky Abdoulaye Diouf Sarr nag def na lu mu mën ci coalition yi ñu ciy gërëmaale bu baax ku mel ni biram Ñing ku mel ni Moustapha Tall ku mel ni vraiment moo Gueye. ñan nga jàpp ne muyewuñ la bari bari na bari na bari na du fii tu sais man. dama nekk dans le parti comme li ma la wax du ma responsable moral bi yàlla dafa dogal makiste la assumer ses positions bu baax man dama nekk nit koo xam ne dama koy assumer di dem ba jeex parce que sama jëmm man man yàllaa ma sàkk ak sama ndey ak sama baay sama bëgg-bëgg man maa ko moom parce que nit ki mën nay dégg lu ko neex mais tànk fu mu dem moom la neex sama tànk bi moo dox dem ci Macky Sall jàppale ko ma assume ko yàlla mi daw dogal të ma dëkk fii ci yoof jënd fi sama kër moom ko du ma nekkee ko bu ma nekkee nag militante Macky dëkk yoof je suis obligé ki fii kilifa di bunt ci ci ab ci Macky ma ànd ak moom ànd ak moom nag assumé ko 2014 ba tey kon Abdoulaye Diouf Sarr mooy sama bunt tey ci Macky donc dama ko assumer mais je di bien li may wax dama bëgg mu leer o et fort su ma toogoon benn yoon dégg tey Abdoulaye Diouf Sarr ne man jàppaleetuma Macky Thioro man tamit je serai libre et indépendante comme ni mu koy waxee dinaa xool ndax man damay ànd ak moom ci loolu wala lu tax du ma ànd ak moom ci loolu wala dina ko raisonner wala man ma dellu ca la ma newoon mooy Macky Sall bi ñu boolee mais tey fi tey dama gis ne liggéeyam subaam ngoonam loyautéem mooy jàppale le président Macky Sall su fekkente ne nag ñun ñëpp en tant que ay leaderu benn Bokk Yaakaar dañu jàpp ne sunu ay ambition kenn mënu ko tere mais nañu ko teer. wax l'essentiel. mais mais soo gisee ne Diouf Sarr mi nekk sa leader dañ koo tooñ. wa ma wax ko ma ñaawlu ko. doo ko farle. du ma ko farle. doo farle Diouf Sarr si tooñ gi ñu ko tooñ. ah non si tooñ nit ku ñu tooñ kay dañ lay farle déggoo ma ne la bu ñu ko tooñee ma wax ko mais man dama jàpp ne fii li mu nekk di def ñu ngi ci ànd même bu ñu ko tooñee la mu war a wax moom nee na parce que Diouf Sarr dafa wax ne su amee benn problème boo am ne soo xam ne dafa am au au bàyyi leen ma man ma dem lijjanti ko dinaa ca waxtaan ak ñama ca war a waxtaan mais yéen li ma leen sant te ma ànd nag yéen ñii maa leen fekk ci parti bi ñii maa leen fi indi ñii dañu nekk ay sympathisants nañu ànd ci discipline nu parti mooy ñu gëm suñu parti jàppale le président Macky Sall te bu ñu saaga bu ñu xaste bu ñu dóorante xam nga man ku ma nar a xeexal mooy waa kër Sonko yi ñu jàkkaar lool man ki ma nar a xeexal mooy opposition man du ma def sama effort di ko xeex ak sama mbokk duma def effort di ko xeex ak partisan. waaw ah, mais nag mais nag euh, soxna Nogaye Mbuub. oui man de damaa jàpp ne. ñi gën a contre Diouf saar nekkuñu ci opposition bi mais ci biir APR la ñu nekk ak biir benn bokk yaakaar. waa loolu loolu war naa mën a nekk. waaw mën naa jàpp mais loolu war naa mën a nekk li nga jàpp noonu. lu mën a nekk la parce que nit ki su la mënee nga am ambition jàpp na yow. bu yàlla doon dogal tey Ablaye Macky Macky Sall tey bu fekkoonte ne dafa demoon bañ ne day tànn dauphin. yow lay dina jàpp ne dina tànn Ablaye Diouf Sarr ci loyautéem ci déggal ko ci disciplinam ci njàngam ci bokk fu baaxam ci gëm liggéeyam mën na la ëpp chance ñu tànn ko kon da naan bu fekkante ne lobby politique la xaaral ma xeex ko. loolu nag ñun ni ñu ko bëgg a recevoir du ñu ko recevoir di la xeex. yow mi ñuy def loolu mais dañ lay tontu ci liggéey. ci discipline ci dem massifier ci def tournée régionale ànd ak nit ñi jëli ay nit yoo xam ne gëmatuñu parti bi wala gëmatuñu la produit de Benno Bokk Yaakaar ñu fexe wax ak ñoom ne leen ñëw leen ñu jàppale candidat bii parce que candidat bi mooy candidat bi nga xam ne candidat futuriste la mooy le président Macky Sall ah oui c'est le ah, candidat waaw d'accord danañ si ñëw si loolu ah, c'est le candidat si danañ si ñëw léegi waaw Diouf Sarr euh, dafa am ay adversaire politique ci biir Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba bokk si Ablaye Diouf sa euh, euh, Mame Mbaye Niang Mame Mbaye bokk si dama lay déglu rek dégg ma expliqué Mame Mbaye Niang bokk si mhm. ñaar ñii dugal nañ leen ci gouvernement bi Ablaye Diouf Sarr nekkul ci gouvernement bi nekkul maire Yoff est-ce que tey ñaar ñii surtout Amadou Ba est-ce que mënut a suul Diouf Sarr politiquement ci département Dakar non xam nga man maa ngi féliciter le président Macky Sall ci choix bi mu def parce que jàpp na ne dans son gouvernement choix bi mu def mooy choix bu meilleur kon damay ñaan gouvernement bii nga teg mu teg muy le gouvernement de combat combat ci soxla Sénégalais yi combat ci vie bu cher combat ci wàññi loyer loyer loyer yi combat ci pétrole bii nga xam ne ñu ngi koy xaar combat ci li nga xam ne nii mooy tax suñu sécurité dëkk mën a am. combat yi 2012 li leen santoon ngeen def combat yi. waaw combat bi mun jóguñ ci combat li ñu fi fekk 2012 xam nga soo fàttalikoo le président Abdoulaye Wade maa ngi koy ñaanal yàlla dégg naa sax la moom waxtaan ak président Abdou Diouf démb damuy ñëw ci dëkk bi daf ne woon Macky Sall munul fay salaire fii ak 3 semaines wala fii ak trois mois waaw ku ñu ne woon mënoo fay semaine euh, fayal salaire fii ak 3 mois kon bàyyee luñ la yow loo fayee salaire kon nag bu fekkente ne boobaak tey salaire yi ñu ngi dox. leb bu bëri. bo mais ndokk yàlla. am réew mais dañu war a sax dégg naa sax dégg ministre bu bees bi nee na nañu wut cent millions. mais dafa waroon laaj deux cent dañu waroon laaj deux cent millions xam nga tax. mais leb kenn du ko ndamoo. mais ndax benn dama yow boo amoon xale la Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye da nga ñu dénk réew mi. waaw dama ne la leb dama ne la leb kenn du ko ndamoo yow boo amoon sa doom doo ko yó doo ko doo doo mbàkkoo leb di ko am réew mais Sénégal mënu leen a dëkk nag wax dëgg yàlla ñu dégg leen réew mi ngeen bëgg a ndamoo lépp ay près de 1000 milliards ngeen bëgg koo lépp bëgg koo ndamoo. dama ne euh, Moustapha Ba 100 millions yi mu laaj dafa tuuti. 1000 1000 la plus de 1000 mili 1000 milliards la wax. bu fekkonte ne mën na laaj plus de 1000 2000 milliards. waaw na ko laaj pour réew mi dox gis nga am réew occidentaux yii di laaj di dundale di sauver nit ñi. Mhm. si niveau social bi di ko yéegal. dama ne xaalis bi ay kayit la. waaw dañ koy laxar ci dañ koy defar dañ koy lijjanti. Mhm. te am fii fii réew yi ñu toll waxuma la leb mais dañoo waroon defaraat ay milliards dugalaat ko ci dëkk yi pour que ñu économie yi mën a dem pour que nit ñi mën a survivre xam nga àdduna dafa am nu muy doxee bu fekkee nit ñi dañuy yem rek ab doom man sama doom ngay wax waxi doom ak waxi réew. bu tële ko xam nga lu tax ma wax loolu. non bul jëlee leb kenn du ko ndamoo. ñun ndamoo wuñu fi ay leb dama ne la dañu ñu dénk réew mi. waaw yéen toog leen rek. Sénégal bu nit ñu fayul impôt. Sénégal bu fekkente ne bay bi doxul. Sénégal depuis depuis depuis Senghor ba tey. ay usines yu ñu war a mën a lijjanti sa bopp bay dundee mënuñu koo àggali Senghor ba tey dama ni. moo tax defu leen résultat. waaw mais d' accord defuñu résultat. ci côté industrie. waaw defuñu résultat mais ñi ngi jéem pour def industrie. waaw ñi ngi jéem xam nga Chablat Chabdou Hadr réew mi. di ngeen ko dénk président Macky Sall mu am le plan Sénégal émergent neex dëgg yàlla xam ngeen ni réew mi dox na ci lu bare bare bare bare ci ban fànn ci gratuité des soins exonération wu boo xoolee 2012 daanaka ba 2018 2020 dañoo tée inflation wu dundu gi 2021 2022 la yéeg te li ko indi xam ngeen ne sa mondial muy Covid kenn dematul ñëpp tëju kenn ku ci nekk la nga am nga di ko dundee. xam ngeen ne courant bi dëkk bi toogoon nañu fi ci plan tàkkal ci xuy kamaj ñu dem ba tey nit ñi ñi ngi xëy di liggéey suba ba ngoon benn courant coupé xam nga ne tey jii réew mi dem nañ ba employa employabilité des enfants wala des jeunes am na lu bari luñ ci dox jëkk nga ne. jigéen ñi jàppale nañ leen ci seen ay biir kër yëg ngeen ne ci social bi bourse familiale dox nañ ci lu bare bare yëg ngeen ne ci diplomatie bourse familiale bi ay weer ngeen ne waaw ay weer dinañ ko fay bu ñu 1000 milliards yi bu duggee rek problème yooyu yëpp dina wàññeeku. gis ngeen ne waa ndokk ndop mbay dundee rek ak leb dundee léegi amul benn problème may ma ma àggali da ma laaj sa non sa doxaat di nga ma bàyyi parce man mënoo ma laaj ba am ay question Ah. mais si vous voulez répondre à vos questions ce n'est plus la peine ngeen ñuy invité. parce que nag ñun Benno Bokk Yaakaar mais sa mais sax sama tontu nag moom dangay ngay déglu rek mu àgg. ñun Benno Bokk Yaakaar dafa am lu ñu gëm. te gis nga ci élection yii ñu jëm wala ci jotaay yii ñu jëm di ngeen ñu namoon ngeen sax gis ay nit yu taxaw di defendre le plan Sénégal émergent taxaw suñu ay di défendre suñu ay leaders bisimila ñun tàmbali nañu xam ngeen yéen da ngeen di def revue de presse bisimila mais ñun politiciens yii tey taxaw tey li ñu jaral doomu aadama yi ñun jaral nañu ko ñun waa les amis de Diouf ak ñun les makistes ñun taxaw nañu pour jëli fu mu mën a ne ñëw teg Macky fu mu bëggee ñu doxal ko ko d'accord léegi xam nga soxna na koy ju mburu kenn waxu leen bu leen leb hmm. mais boo lebee ba pare dafa war a am investissement yoo xam ne da nga koy dugal ci priorité. waa loolu moo tax ñu ne loolu moo tax ñu ne la merci beaucoup vraiment dimbali nga ma. defu leen ko ci priorité. non non defal dànk rek xam nga gouvernement bi yéen laaj xaar leen ba 100 jours ñu def déclaration bi 100 jours bi dafa jotagul di. waaw d'accord léegi yow li ma la laaj sànq. non yeggali rek dama ne 100 jours bi jotagul. waaw d'accord kon xam ngeen ne lii ñu fi ñu jëm. ki taxaw teg social ki président Macky Sall bi muy bi muy bi muy taxaw bi muy taxaw bi muy taxaw war a defar gouvernement bi balaa muy def commencé na ay waxtaan. kon kooku wane na ne yow gouvernement bi man maa leen di diriger fi ma bëgg ngeen jëm ko. waaw fii ak fii ak li dese président Macky Sall de fii ak 16 mois. waaw man gaw ma ne jafe Sénégal am ci inondation wàllum loyer. wàllum dund gu cher. gaw ma ne 16 yi ak gouvernement bii nga xam ne tey euh, nee nañ sax ñi dàq saaga dàq xaase ñoom lañ dugal ci gouvernement bi jàpp ma ne ñoom ñooy régler problème sénégalais yi fii ak dañ leen bëgg tere saaga sant leen ay liggéey parce que bu fekkante ne boo toogee ci biti te mën a liggéey saaga rek ngay def dañ lay dugal ci biir nga dem liggéey basaaka yi. léegi liggéeykat yi moom ñu bàyyi leen ay vice président assemblée na sax wala fan. yow da nga xeeb vice président assemblée Abdoulaye Diouf Sarr xeebu ko Abdoulaye Diouf Sarr il se réjouit. politiquement du dara. ah bon si. nag. du dara ah loolu nag. loolu ah, nag yow yow Abdoulaye Abdou Khadre. waaw man tey nag bett nga ma. politiquement parlant. non Abdou Khadre waaw non. non bett bett ma. waaw dafa nànk rek dafa nga bett ma. troisième personnalité de l' état Abdoulaye Diouf Sarr. toog ak ay nitam ne maa ngi remercier le président Macky bi mu présider keroog les amis de Diouf Sarr ne da ngeen may demander pour ma présider lii nangul naa leen ko parce que nag mouvement du dara lu dul jëli ñu ci bokkul woon pour ñu ñëw jàppale ñu. waaye ma leen di xamal ne président pré Macky Sall troisième personnalité bi mu ma jox def ma le premier vice président. ki la ko jox yé xañu la pour ëllëg nga doon président de l'assemblée daa di ne moom de jàpp na ne heure bi moo war a doon koo xam ne mooy tànku Macky Sall fu mu mën a dem tournée régionale bi remercier nit ñi nga xam ne jàppale nañu benn bokk yaakaar y compris ñi bokk les amis de Diouf Sarr dina fa dem pour gën a vendre le le gën a vendre li nga xamante ne nii mooy le bilan du président Macky Sall mais aussi li nga xam ne mooy attentu euh, attentu askan wi ndax a parlement kat ci askan wi la kon yow mënuñu la jox foo xamante ne nii da nga nekk ci askan wi war a jàppale askan wi nit ñi di xalaat leneen di jaay seen ay produits naan ma euh, Abdoulaye Diouf Sarr kalaake na porte ba dem na ab laay demul fenn tey la gën a bon d'accord xam nga tey euh, yow am nga sa xalaat ci premier vice président man ma am sama xalaat nit ñi ñoo ngi ñuy déglu peut-être Abdoulaye Diouf ministre Abdoulaye Diouf Sarr ma ngi ñuy déglu mais man ah. li ma jàpp ah. mooy premier vice-président assemblée nationale hmm. am na solo mais politiquement parlant man foofu laay waxee léegi sànq dama laaj laaj boo xam ne tontuwoo ci dama wax ne la Amadou Ba ak Mame dañoo nekk ci biir gouvernement bi. Hmm. est-ce que politiquement tey mënuñoo nekk ci kaw Abdoulaye Diouf Sarr ci département Dakar département Dakar. xam nga Amadou Ba ak ak Abdoulaye Diouf ay xarit lañ. ci kaw nii. waaw loolu yëpp mooy li may wax. man dama man man du ma man man li war a fi naan du ma bëgg sekk du ma maadaaba du ma gën ko ca birabaat man ab Ablaye li mu wax. ak li Amadou wax. loolu laa mën a dégg man nag man maa gëm man damaa gëm ne ñoom ñaar dañ ay adversaire lañ. waaw xam ngeen yéen journaliste yi tëgg combat moom yéen a ci ay. yéen yéen a raw ñiy tëgg combat yéen combat politique yéen a koy tëgg xam nga Gaston day tëgg combat lut yéen journaliste yi <laughs> combat politique ngeen di tëgg. mais li mu a mën a wax. encore une fois kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar wala kenn ku ci nekk ci ñoom ñett nañu xam ne kenn mënul suul sa morom nañu xam ne le président Macky Sall ay nawle lañu ak ñun ñi ànd ak ñoom ñépp nag ay nawle lañu bu fekkonte ne tey loolu dafa nekk ci xelu le premier ministre maa koy félicité ne loolu dafa nekk ci moom pour suul Ablaye na ko teggi parce que du intérêt parti bi gis nga askan wi bu ñu nangu ñu ñuy seetaan duñu ñuy jéppi gis nga ay nit bu ñu leen jéppee du ñu jéppante bu fekkente ne dafa nekk ci xelu mamay ñaa ndaxam doxe na ko sax ci liste parallèle wax na ne man duma ma du ma du ma du jàppale benn meeru Benno Bokk Yaakaar ci dakaar loolu ba mu koy wax défiewul Ablaye Diouf Sarr xam nga ko mu défier mm-hmm. le président Macky Sall. mais kooku ko neexal tey. kooku xëy na loolu la gis ko kon kon kooku na ko président Macky Sall réglé. da koo félicité ci li mu doon attaqué Diouf dama ne kon kooku ça engage le président Macky Sall. waaw laaj ce que du est-ce que da koo neexal ci li loolu gëmuma ko président Macky Sall du du du far kii bàyyi kii gis nga Macky Sall lu mu def yow ci sa bopp yow mi mu ko def te yow nga xam ne lu bon nga doon def war nga seetaat sa bopp. war nga non mais ne ma ma àggali foofu war nga seetaat sa bopp ne man lii ma def te baaxul. ñu fayee ma lu baax lan laa war a def bërki démb la Kaliphone saaga fii Macky Sall ay saaga yu méttee métti wax ko lu ne important pourtant Macky dafa ñëw mu ne ko baal ma ak mu baal ko mais tey fi tey ba mu ko baalee ba pare ana Kaliphone gis nga nit ku bon mook lu bonam ñoo koy wéetoo. d'accord mais dama bëgg a ñëwaat rek foofu mooy ni ma ko waxee ci Ablaye euh, ci amado le premier ministre waxee ko ci Mbaye ñaar noonu laa koy waxee ci Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf laa mën a wax. moom laa mën a dalal moom laa mën a xelal li ma koy dolli ci lim ne parce que bu fekkonte ne dafa ñu attaqué loo guerre. Amadou Amadou Ba wala mu attakeloo ñu guerre ma may ñaa kon bu boobaa soo ma laajee question dama naan la la guerre comme à la guerre mais dama ne moom il rest demeure loyal son leader muy le président Macky Sall mu fekk ñu ñu ci ñu daje ci. ñu nit ñu jàpp ne mën na nekk kenn ku nga xam ne bunt la ci ñun kon le président na woo njabootam yépp te duma ma sax ci Abdoulaye Diouf Sarr de damay egg ci Aminata Touré gis nga man Nogay Mbuub bokkuma ci ñuy saaga Aminata bokkuma ci ñuy saaga kenn dama gëm ne jabootu Macky Sall dañu war a ànd parce que gis nga lu mu jaral ñii ci biti Eh, war nañu ko jaral problème moom Macky la. waaw mais même bu nekkee moom problème bu dee loolu ngeen jàpp le président Macky Sall. bu dee problème bi moom la. waaw dama ne. may ma foofu ma interpeller le président dama ne ma après yow boo jàppee ne loolu la. waaw base bi jàpp ne loolu la. biti bi jàpp ne loolu la. jàpp ne yéene wut amaa dama see yokk jàpp ne yéene wut ay nitam. mënuma ko gëm parce que saa yu xëyee mi ngi nommé ay nitam. tey fi tey rek nommé ne ay nitam ak ñu dul nitam. kon dama wax ne. yëpp dafa am fu muy yem. la gisee kay ngay bàyyi leen bu la gisee ngay dem sa njombaxtal ga. te dagg si jéem a loolu loolu sa xalaat la. mais le président Macky Sall maa ngi koy woo bu fekkente ne xalaat nit ñi dañu am incompréhension ci ni ngay doxee yow kon président Macky Sall fexeel ba sénégale yi nga war a yor suba ñu gën a xam leeral sa xalaat ak sa jëf waaye li ëpp solo. mooy ñun jaboot gi nañu yéenante te nekk benn. mais nekku leen benn. am na division. Mm-hmm. bu am na division te division bi ñoom bu ñu toogee dañuy mel ni ay xarit waaye bu ñu génnee kenn ku nekk yaa ngay fay sa journaliste ci suuf. wala yaa ngay fay sa militant ci suuf yaa ngay fay sa militant ci suuf non defal ndànk non non non tax man du ma ko nangu ci diggante Abdoulaye Diouf Amadou Ba. Mm-hmm. bu fekkonte ne xëy na Ablaye jàpp na ne loolu am na si Amadou Ba kon wallahi azim ak jumaa ji danaa dégg kon benn yoon Ablaye Diouf Sarr ne dalal leen ma ci kaw Amadou Ba wala mën a dalal leen ma ci kaw Mame Mbaye Niang la kenn mënta xam lu ko naqari wala lu ko neex parce que def ne république bi lay liggéeyal te je resterai leader à mon et ami Macky Sall te gëm na ne li Macky Sall di dox ci réew mi muy le plan Sénégal euh, émergent tey jii ñuy wax euh, yoonu yokkute nee na gëm na ne gëm na ne réew mi fii ak deux mille quarante loolu président Macky Sall di teg ku mën a ñëw munoo wàcc programme boobu. ban programme. mooy fexe ba. programme bëgg a añ doo añ bëgg a reer doo reer. loolu da ngay fexe njëkk euh, réclamer sunu borom mu indi feebaru Covid 19. mais da bi mu ko indee ba pare ay réew yu mag a mag a mag a mag ñoo nërmeelu tey ay réew yu mag a mag a mag ñoo tëju. di wut lu ñu lekk ak lu ñu naan nga seet ay réew yu mag a mag di ran di yor ay milliardaire yor plate di dugg ci restaurant pour lu ñu lekk kon man. corona bi ngeen tuumaal jafe-jafe waaw corona corona bi. ku ko corona bi ngeen tuumaal. corona bi amu fi ah? tuumaalul dafa fekk yow corona bi yóbbu la waaye ku mu fekk ngay dund di nga ko tuumaal waaye ñi dee ñëpp tuumaal ñoom du leen tuumaal seeni mbokk nga leen di jooy kon ñi ngi massaw ñi deele ci corona bi ñi ñàkk seen alal ci corona bi ñi seen business yàqu ci corona bi man États-Unis laa nekkoon su may wax ak yow duma wax ak yow rek am xelum sénégalais dama lay wax ne la damaa nekk fii nekk ci beneen réew ku mos leneen mën a wax leneen ku gis feneen mën a wax leneen réew yeneen yooyu sonn nañu sonn goo xamante ni ñu ngi ne siiwal lijjanti seen bopp ak seen njaboot kon ma jàpp na ñun Sénégal fi ñu toll ba yàlla dimbali ñu ba ñuy xaw a noyyiwaat amaat pumo di jóg nanu nawloo suñu dëkk nanu jàppante nanu téyante nañu defarante te ñu bañ indi manipulation bu ñuy def ci waxtu wax ak nit ñi Abdoulaye Diouf Sarr nag c'est un bon leader Abdoulaye Diouf Sarr c'est un responsable boo xam ne nag tey ku ko génnee ci ossature Benno Bokk Yaakaar ak gouvernement du Sénégal quelle soit position fa mu mën a toog am na as tuut nee naa la chaque leader pèse 10 pour cent wala 5 pour cent. mais li ñu wax ne Diouf saar moo ne président Macky Sall dafa dugal ay saagakat ak si gouvernement bi ak ñu ko doon ay ak ay ñu ko doon ñu doon saboté élection locale yi ndax loolu Diouf saar moo ko wax. Diouf Sarr de li ma dégg mu wax mooy am na ay saboteurs yu dugg ci locale bi dëgg la. ci gouvernement bi. déedéet pas gouvernement bi daf ne am na ay saboteurs. ci élection locale yoo xam ne ci élection locale yi ñëw nañu pour saboter mais teewul. Mhm. mi ngi jàpp ne ba tey rek lu mën a xew. c'est la république yàqu lu ko yàqu. dugal leen ci gouvernement bi euh, Nogay Mbuub yow. waaw xam nga waaw xam nga xam nga man déggeewu ma ko noonu. et dinaa dinaa bëgg ñu woo ko ñu poser ko question moom mi wax ba peut-être mu indi suscité yenn interprétation yi ñu jàpp ne saboteur yi ñu dugal ci gouvernement bi la man déggeewu ma ko noonu man maa ngi toog ci événement bi. mais déggeewu ma ko noonu. mais noonu la mais gis naa presse bi déedéet yéen ko bëgg mooy li ma la wax. presse bi moom gis naa presse bi xëy relaté loolu mais man déggeewu ma ko noonu. ni ma ko déggee daal mooy am na ay saboteur ci biir local mais bu ngeen ko doon assumer yéen bu ngeen ko doon assumer da ngeen ne jël nay saboteur dugal ko ci biir gouvernement bi exemple Mame Mbaye Niang. déedéet déedéet ñun wax ñun mosuñu tudd turu Mame Mbaye Niang. non bu ngeen assumé woon laa wax. non xam nga xam nga ragal amu fi. ragal amu fi mais xam nga problème bi mooy. problème bi mooy mais ñëpp gis nañ ne Mame Mbaye Niang élection locale yi dafa doon contre Abdoulaye Diouf Sarr. waaw xam nga li gën a neex programme am yëpp xas Diouf Sarr xam nga li gën a neex. waaw mooy ngay wax te tuddoo tur nga xëy li nga wax ñëpp yamale ne diw la. kon diwa def. mais nga assumer ko rek wax. non dama ni déedéet dama ni xam nga dama ne su ma waxee sama wax dugguma dama ne infro infro rek nga ne man de duma dëmm yow a ah, loolu fii lañ ko fekk ay wolof lañu bu fekkente ne danoo waxtaan moom dafa toog ba yàgg mësta wax mu wax saboteur yi mu wax ne nangam mu wax ne union moo gën li ñuy def ñu xëy ñépp na diw la woowuñu woowu woowuñu la yow woowuñu beneen ministre na moom la lu dul moom kese la ñu tudd ki nga tudd parce que man bugguma tudd turam mu mu yàq samay wax ci li may def. d'accord léegi insulteurs yi ñu wax ne dañu leen dugg ci gouvernement bi na Diouf Sarr moo ko wax. Euh, man de loolu daf ma rëcc kon. mais lu Diouf saar wax lu juuf saar wax franchement man li ma wax li ma li ma ci ëppal njëriñ mooy malgré les insulteurs il est resté serein parce que nag insulteurs yi chaque ajjuma nga dégg nga dégg euh, xutbakat yi bàyyi ne nañ bàyyi saaga yi dem nañ ne ba këru diine yi bëggatuñu wax dem nañu ba jàngu yi bëggatuñu wax dem nañu ba léegi politique bi sax nit ñaa ngi koy bëgg bàyyi parce que ay insulteurs mais pourtant il est resté serein toog déglu ànd gëm li muy def et que tey la gën a loyal kon nag ñi nga moom mi ngi bëgg a woote si ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi gedd parti bi wala ñu ngi bàyyi parti bi parce que insulteur la wala ñi ngi génn parti bi nee na leen nañu resté ñu toog ci biir parti bi parce que le mot d'ordre mooy nañu jàpp ñun ñëpp ànd téye ki nga xam ne mooy le président Macky Sall parce mooy suñu dénominateur commun Abdou Khadre mais waxul ne saaga du ma dugal ci gouvernement bi waaw moom loolu la wax du saaga nee na saaga du ko dugal ci gouvernement lu tax mu dugal nee na moom saaga du ko dugal ci gouvernement. waaw xaste du ko dugal ci. waaw non may ma rek may ma xaste du ko dugal ci gouvernement. Mhm. wax lu ban du ko dugal ci gouvernement. Mhm. moom li mu gëm ci réew mi mooy loyauté wax na ko ba ne je ne suis pas né ministre ndagam ba mu nekkee ci biir gouvernement bi. waaw xam ngeen loolu tam bu leen ko fàtte. toog na ci biir gouvernement ñu laaj ko jàkkaarloo mu ne leen je ne suis ministre. ndax dañ ko ne woon tey boo génnoon ci gouvernement mu ne leen su ma génnoon ci gouvernement je resterai serein damay liggéey la preuve génn na ci gouvernement tey mi ngi ci parlement bi parlement bi mu nekk daf fa toogal le président Macky Sall. du ñàkk pexe. déedéet ñàkk pexe mais su président Macky Sall am na ñu mu proposé ñu génn te pourtant ñooñu mu ngi leen di woo ne leen da ngeen war a toog. waaw mais yow ñooñu ñooñu mi ngi leen di interpellé ne da ngeen war a toog ci biir parti bi leen génn. xam nga na koy mbuub euh, ay wax dañ koy dégg. laay Diouf saar bu taxawee ne. Hmm. man duma ma saaga pour dugg ci gouvernement. waaw du wax lu bon pour dugg ci gouvernement. du ma xaste pour dugg ci gouvernement. Hmm. loolu mën nga koo jàngatee ne dafa gis ne dafa am ñu wax lu bon ba dugg ci gouvernement am ñu saaga ba dugg ci gouvernement. waa xam nga wax nga ne yow mën nga ko jàngatee. waa man noonu laa ko jàngatee. waaw man na koy mbub jàngatee wu ma ko. d'accord léegi man ni ma ko jàngatee. Ah. man ni ma ko jàngatee mooy <laughs> nit ku mën a nekk. amal sa dignité amal sa ngor. amal sa loyauté restel ki nga nekk ba lépp looy am nga am ko ci ngor ak dignité loolu mi ngi interpellé waale aussi ñi nga xam ne dañ jàpp ne saaga mooy maye ñu ba saaga yi d'accord yéen yéen yéen da ngeen saaga moom nañ ko bàyyi d'accord da ngeen a taxawal benn mouvement les amis de Diouf saar léegi les amis de Diouf saar nag moom euh, lu tax ngeen taxawal ko waa les amis de Diouf Sarr bi nit ñi dañu xamul mais lu yàgg la avant locale yi les amis de Diouf Sarr bi dafa dafa juddu woon juddoo Cambérène macha allah ñu ci nuyu ki ko jiite muy la présidente Ndioba ñu doon ci liggéey bu bari ci local yi législative bi ba ñu bari bari bari bari bari yaatal ko keroog bi ñu doon def lancement defuñu lancement les amis de Diouf pour ma ma aussi la vérité mm-hmm. dañ doon def lancement d'une tournée régionale de remerciement soo xoolee affiche bi banderole bi bu ko bu dee dem nga ci internet bi da ngay def da ngay gis lancement d'une tournée régionale def remerciement dañuy remercier vraiment sénégalais yi nga xam ne jàppale nañu Ablaye Diouf saar ci biir Benno Bokk Yaakaar ngeen taxaw les amis de Diouf Sarr dama ne les amis de Diouf Sarr taxaw na bu yàgg depuis avant locales yi depuis 2019 mais bi Diouf saar génnee ci gouvernement bii si ko gën a accéléré melutoon nii non les amis de Diouf Sarr. soxna koy melutoon amis de Diouf Sarr encore une fois dafa def lancement d'une tournée régional Abdou Khadre. xam naa loolu keroog bi ngeen def lancement tournée ngeen def. man xam naa loolu mais dama ne les amis ko woon. mais macha allah parce que les amis de Diouf Sarr dafa màgg xam nga les amis de Diouf booy demee say nit di la gën a bëgg nga génn ci gouvernement sa nit gën la bëgg nga taxawal parlement bi nit ñi ne yow kan wóolu nañ la ci askan wi di nga ñu mën a waxal. sunu ay jooy dinga ñu mën a euh, euh, voter sunu ay loi di nga mën a seet loi yi baax ci askan wi nga def ko loolu waral na te mu gën a bëgg a taxawal politique gu président Macky Sall gën a jaay li nga xamante ne nii mooy. sunu sunu sunu candidat Benno Bokk Yaakaar. noo Diouf Sarr. yéen les amis de saar bu bu ngeen di dem Diouf saar ngeen di wane Diouf Sarr ngeen di wane wane wu leen président Macky Sall les amis de Diouf moom képp ko ci bokk Diouf Sarr lañ lay gëmloo. man de yàlla de lay waxal ak yonent bi ak cheikhul xaddim mi ma yaakaar man boo ma génnee ci Macky Sall boo ñëwee doo fa fekk dara parce que avant Ablaye Macky na ci sama xol te bu ma bokkee fenn tam damay wax le programme de Macky amul bu ñu demoon tey jii parce que ñu ngi waaj a dem Maabo la xew Maabo Macky Ablaye Diouf Sarr defu ko fa Macky moo ko fa def. ñu ngi am ay nit Saint-Louis pourtant Mansour fay moo fa nekk mais pourtant les amis de les amis de Diouf Sarr ya nekk Saint-Louis dañu gëm programme mu Benno Bokk Yaakaar mais ils sont à l'aise avec ma avec Ablaye Diouf Sarr defal daal xam nga bul fàtte ne bul fàtte ne Covid 19 bi mm-hmm. Ablaye tey àddina yëpp ko bëgg remercier d'accord naa li nga wax mais dama ne la euh, soxna Nogaye yow bu la neexee nga gëm président Macky Sall waaw ak ñi nga ànd waaye dama ne mm-hmm. ñi gëm Abdoulaye Diouf saar te gëmuñu Macky Sall la bëri nañu. waaw mais même bu ñu ko gëmee te gëmuñu Macky Sall te moom Ablaye nee na Macky la gëm ils seront ñu ànd ak Macky loolu mooy quintessence su ànd bi. mais Diouf Sarr xam nga préparé boppam yéen sax yéenay préparé Diouf Sarr ndax yéen li tax sax mouvement bi ngeen gën a euh, taxawal mouvement bi li ñu yokk cere dolli ñeex moom ngeen def ci mouvement les amis de Diouf Sarr ndax yéen xam ngeen ne Diouf Sarr fi mu ne nii il faut que ngeen taxaw Diouf saar am indi Diouf saar ngir politiquement Diouf Sarr euh, ngir politiquement kenn du ko suul. non ñun bi ñu koy bi ñuy def lancement tournée bi franchement bu ñu xamoon sax ne nii lay demee kon dinañ ko gën a yaatal mais on a pris certains ay pôles ay pole la ñu jël rek dëkk bii 14 parce que am na sax ñu jóge ci diaspora bi ñu ñëw pour ñu ne dañu bëgg a préparer une tournée boo xam ne tournée de remerciement la. ak aussi préparer carte yii nga xam ne le président Macky Sall nee nañ ko jaay parce que ñun dañ ko def rek. le ah, lendemain yaa ngi daw question bi man su ma la waxee. yow le lendemain jaay carte Macky Sall waaw am na ku démissionné parti nekk ci les amis de Diouf Sarr te parti socialiste ci biir coalition benn la ah, wax. que Macky Sall <laughs> APR la dooleel Macky Sall. xam nga PS nga wax xam nga da nga parti socialiste la dem la jógee. fàq ñëw ci Macky ci ci ci ci Ablaye ci ci Ablaye Diouf Sarr. ma di nag gëwuma Macky Sall Diouf Sarr laa gëm. ma waaw doo si yokk loolu. waaw bi mu waxee loolu ba pare. waaw Ablaye Diouf bi mu jógee ta kàddu dafa def ne dafa wax ne képp ku ma gëm na gëm ne man. Macky Sall ah non non mais mais xam nga nag xam nga nag damay dem ba de man ku ma woowati kon du ma dem ci ci ci journalisme parce que dama jàpp ne soo amee élément fort bu la war a wax dëgg ay kàddoom. war leer ci bopp nit ñi sama kàddu bu ñëwee yow nga gën ko lëndëmal kon yaa ngi jaxasawaat nit ñi dama ni man de ñi ma xam ñëpp xam nañu nit puy assumer laa gis nga man su ma fekkante ne àndatuma woon ak Macky gis nga lii waa ji wax ci parti socialiste man maa koy njëkk a wax te du ma ànd ak Ablaye Diouf Sarr kon parce que Ablaye Diouf Sarr ci boppam moo bàyyiwul Macky Sall waa léegi yow soo amee sa leader nga ñëw ne ko yow laa bëgg koo caabi oto baa ngi nii dawalal foo ma yóbbu ma dem. mu ne la maa nga jëm ca kër Macky est-ce que di nga wàcc non Abdou Khadre nañu waxante dëgg. non il faut que ñu xam ne le combat le combat bii ñu nekk di def ñun les amis de Diouf Sarr defuñu ko contre le président Macky Sall en tout cas ci li ma xamagum ba fii may wax ak yow tey defuñu ko contre bu fekkante ne da nga bëgg exclusivité. on le fait pour dooleel le président Macky Sall. mais mais aussi. en disant que ne ñun njaboot gi nanu ànd nekk benn. d'accord parce que soo déclenché guerre parce que fekk nga nit ñi bokk ndey ak baay ci biir kër ba tey di rayante. seen baay jóg àtte. dama ne ñi bokk ndey ak baay bokk nañu ci biir kër di rayante seen baay jóg àtte. waaye fii ñu tollu ñun suñu jàmm ñun bennoo bokk yaakaar mooy ñu fexe ba boole sunu ay doole. les amis de Diouf Sarr loolu mooy conduite am. d'accord jërëjëf soxna yow nga nekk conseillère Nogoy Mboup euh, conseillère municipal waaw. Euh, turu Benno Bokk Yaakaar. <laughs> dama bëgg mu leer parce que man sama ancrage si Benno Bokk leer na li dama ko bëgg gën a leeral yow tam. waaw li nga xam ne responsable bu Yoff bu Yoff. waaw leer <laughs> léegi troisième mandat troisième candidature président Macky Sall bi ko ñenn ñi di buux euh, te moom mu taxawoon ne. 2019 bu ñu ko falee mooy nekk deuxième dernier mandat Ismaïla Madior Fall wax ko Mahammed Boun Abdallah Dionne wax ko tey ñenn si yéen bëgg a pousse président Macky Sall ngir mu présenté waat loolu lu mu. waaw jërëjëf Cheikh Abdou Khadre maa ngi wax ne ñun parti bi. parti ban parti Benno Bokk Yaakaar ñun coalition. parce que ñun parti APR la ñuy wax sax ñun. Benno waaye ñun coalition lañu. ñun coalition bennoo. xam ngeen ne bi ñuy gouverner ba tey bennoo la ñu gouverner. waaw. conseil constitutionnel bu déclaré ne le président Macky Sall am na droit def deuxième mandat dëkk cinq ans parce que premier mandat wu cinq bi la def moom mag yi ak lu mu mën a wax na dem déglu parteem na déglu coalition am. ko ci lan. ci luñ koy orienté. su fekkente ne coalition bi porté na candidature am moom yoonam newu ci. day dem waaw parce que coalition nag boo ci bokkee lu la neex wax lu la neex def nekk ci biti nag projet de campagne ak projet de mandat boo jëlee mandat bi ba pare projet bi ci ginnaaw nga waxee woon waaye boo see projet bi taxaw mooy bi ngay teg te bi mu teg mooy de mandats de cinq ans su fekkente ne nag moom jàpp na ne mënul dem. na taxaw ci biir partem ne mënuma dem pat partem def congrès wante su ko partem porté nañu ko assumer te man dinaa bokk ci ñu koy assumer parce que man dama gëm ne dafa war a def deuxième mandat de cinq ans te man na koy mbub j'assume pour que le président Macky Sall def deuxième mandat de cinq ans pour beaucoup de raisons. yéen xam nga bu réew mi amee amee jafe-jafe yéen yeneen di jafe-jafe ci réew mi. man de ci réew mi laa bokk te damay jënd ceeb mu metti trop ci man aw ma ko damay jënd suukar mu metti trop damay jënd ndox mu metti trop waaye si ma jàppee ni kii mooy solution bi bi mën a régler problème bi duma ko yóbbu ci fu ñu amul espoir te awma espoir ci opposition bi am naa ci droit. xam nga opposition boo xam ne mosoo joxe programme bu nit ñi xam. chaque fois non man Sonko du sama problème. man dama ne opposition xam nga opposition du Sonko rek. mais Sonko joxe na problème. dama ne Sonko du sama problème man duma ma du ma wax opposition di wax ak Sonko. non. parce que opposition bi dafa yaatu ba dañ ko dañu wax ñoom dañoo dem ba ñàkk pexe xam na ils sont minorité ñu def coalition. te bi ñu booloo yëpp def comme ni ngeen def. waaw mais ñun def coalition du bañ nag soxna na waaw du du mais du ba du bañ. du bañ moo tax ma wax la ne du ma wax benn nit. comme ñoom dañu nekk coalition opposition bi lay wax. am naa droit bañ a jël samay wax di koy di ko concentré wu ci benn nit. opposition bi dañoo def coalition ne ñoom nañu dem kon xam nañ ne néew nañu doole président Macky Sall tey tam mi ngi ci coalition moo tax ma ne la coalition bi su fekkente ne gëm nañu ne espoir bi ñu war a jox parce que nag jàpp ma ne nit dina jël réew di ko yor téye ko def ci lu baree baree bare di ko bàyyi ak réew mi di ndóol wala réew mi di torox état bi Macky Sall réew mi du royaume waaw de déedéet Macky dafay jeexal parce que looloo tax mu ne deux mandats de cinq ans deux mandats de cinq moom moo fi indi te incha allah raw bi kanam la jëm day def deuxième mandat yàlla na ko ko may parce que mën na ko bëgg population bi ne déet mais li tax mu taxaw teg projet bii teg social bii ñuy wax ak nit ñi mooy ñun nañu wàcc ci terrain bi nañu ñaan yàlla suñu borom bi fi mu teg euh, jafe-jafe réew mi àddina mu yam mu sedd ba ñun ñëpp ñu bokk ko. mais bu ngeen demoon élection sax benn mënuñ leen a gagné kii waa wi waa xam nga même Yewwi ko ne def candidat est que jàppoo ne yooyu moo xam Khalifa Karim bu dee am na si leen ak euh, candidat Sonko est-ce que jàpp nga ne mu ñu leen a gagné 2024. waaw xam nga fu mu nekk nii politique bi dafa dañ ko sottiwaat ci sàkk maanaam fii réew mi toll dara leeratul li ko waral mooy euh, jafe-jafe àdduna tax na kenn xamul ci li nga ne maanaam lépp lu nu yor. dañ ko war a fonk téye ko waaye paa mu daanu ñi amul tam ñi ngi fexe ba nit ki yor dara mu wadd ñoom ñu téye looloo tax nag ma jàpp ne politique bi ñu jëm dafa laaj jàmm d'abord parce que il faut la paix pour nit ñi mën a def politique dafa laaj stratégie il faut nit ñi am ay pexe yoo xam ne day jëmal nit ñi kanam il faut que ñu dugal yërmande boo xam ne ci askan wi ñu jox ñu bopp il faut que ñu respecter ñi ñuy waxal il faut ñu moytu euh, euh, nu mu tudd arrogance il faut ñu moytu euh, defante parce que bu ñu nangu ñu làngal ñu ci politique bi xam nga ñun ci li ñu askan wi di xaar mooy ñu dundal leen ñu yërëm leen ñu woyefal leen inondation bi nga xam ne bu tawul fenn du taa te yàllay joxe taw bu tawee yàlla may ñu ñu am assainissement assenir yoon yi bu ñu am fu muy mën a jaar bu fekkente ne njaboot gi am ñàkk nañu liggéey ni ñu taxawee ci ndaw yi ñu fexe ndaw yi jot ci seeni liggéey ñi war a jàng-jàng bu boobaa bu ñu votee ku ñu jox réew mi ñu xam ne yow la ko. yow la ko ah, yow la ko askan bi ah, jox. Nogaye Mboup euh, waxtu bi léegi mu jot euh, Ousmane Sonko nemmeeku tuur bi <clears throat> nemmeeku tuur bi moom ngeen defoon ba gagné fi mu ne nii maa ngi ci moom sax jàpp na ne euh, état bi Macky Sall daf ko commencé bu ndoxataal. waaw moom xam nga dafa am ci lu mu jëm procès. moom nag saa yu jëmee ci procès baaxoo na di def ay sorties pour ñu ne damay sama ñu jàpp ko mu indi ay wax mais yooyu yëpp c'est pas important bu nemmeekoo tuur te ña nemmeeku resevoir nañ ko mu teg ko ci yoon bañ a def benn problème na nemmeekoo yi ni mu war a nemmeeku réew mi ñoo ko bokk. ñun tam bu ñuy nemmeeku gis nga ñun ñu ngi préparer tournée régional normalement ñi ngi am agenda bi dina génn ñu nit noonu la ñuy nemmeekoo. te le président Macky Sall itam noonu la war a nemmeeku. réew mi objectif seen mooy remercier sénégalais yi. waxtaan ak au nom de au du président Macky Sall. ak aussi li ñu jàppale benn Bokk Yaakaar parce que aussi. mais remercier sur si si jox bi ñu joxaat parce que nag bul fàtte ne <laughs> dafa am ñu wëroon àddina bi bëgg a yàq turu Macky Sall. ñu wër àdduna bi ne Macky Sall dafa bëgg a toroxal nit ñi dafa bëgg a def nii dafa bëgg def lu bon Macky Sall dafa yokk dund gi Macky Sall yi dafa nangam pétrole bi du fi dox gaz bi du fi dox lu ne ñu du ko wax. loolu ngeen bëgg suñu tournée bi dafa am ay contenu yoo xam ne ay panel lañ ko def du ñu def tentamar du ñu du ñu tëgg du ñu def lenn li ñu am comme agenda mooy programme bi nga xam ne moom la président Macky Sall di def euh, yor. te Abdoulaye Diouf Sarr nekk deuxième premier vice-président de l'Assemblée nationale muy parlement kooku boobu place boobu boo fa nekkee jàngat bi ñu ci am mooy amatuloo nekk nekkatuloo député wu Dakar fii ba fongale mi yaay seen député. mais mais mais euh, soxna Ndogoy Mbuub est-ce que Sonko tiitulu leen yéen waa Benno man wax naa la sànq xam nga mënuma la wax lii waxaat la lale nee naa la opposition bii ñu am ñi ngi def lépp pour nangu li ñu yor. loolu nag soo ko amee waratoo nelaw waratoo toog waratoo xalaat li nga war a def mooy concentré wu ba li nga yor nga téye ko ba dara gëñ la gësam parce que nag ki ñor tab bi ak ki ngësam di indi du benn te comme lii dafa to dañ koo togg ba bennoo Bokk Yaakaar am ko jël ko téye réew mi di ko doxal te réew mi soo sàgganee ñu nax nit ñi ba jëlee leen ci war ngaa dox leeral nit ñi leeral askan wi gindi leen. waaw d'accord jërëjëf soxna Ndoye Mboup waxtu wi jot na ñu maa ngi lay gërëm di la sant di waxaat ne benn bopp kenn mënu ko xarñaar benn bokk yaakaar benn bopp la Macky sàll mooy suñu kilifa ñun ñëpp fii ci yoof sunu bunt mooy Abdoulaye Diouf Sarr muy premier vice président bu assemblée nationale di doomi réew mi. képp koo xam ne yaa ngi bokk Benno Bokk Yaakaar nañu booloo nañu ànd wuy si sunu leader ci li ñu nekk plan Sénégal émergent bi mu teg programme bi mu teg ñu àndandoo ensemble pour que réew mi jëm kanam. maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf euh, soxna Nogoy euh, Mbuub mu nekk euh, conseiller municipal ci commune bu Yoff nekk responsable politique APR Yoff bokk ci Benno Bokk Yaakaar. Euh, bokk ci nag euh, mouvement les amis de Diouf Sarr mbokk yi moom la ñu invité tey seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi ngeen jëf jàmm ak jàmm.